tàmbalee rek ne ah yéen a wut bëggul ñu juboo ndax du di ma nettali. xanaa xamoon ne xarit piir dëgg la xarit piir xarit piir. bëri na lu néew lu mu lay nettali dala koy fajal. la nit ñi ñooy ñëw. Mhm. ni la ah, la démb fekk naa mu di la défendre. Ah. nga ni mantu yow lu tax waxoo mu ne ko jëru ko défendre naa la. mooy dëgg mooy dëgg. Mhm. Mhm. waaye xarit boo xam ne du la défendre ci ginnaaw. lu baax liñ la nettalil ci koñ bi mosut a ñëw wax la ko. waaw lu dul safaan képp la ñëw buñ mu ñëw wax la ko. buñ la saagaa la koy nettali. nga noonoog ñëpp. nga noonoog ñëpp moom mu xaritoog ñëpp. boo dee wut ku la bañ jàppal nettalikat bi. déggal wuyul dee na yow nga noonu ak ñëpp. waaw moom mu xaritoog ñëpp gis nga xam nga lu tax. ñi muy indi seen wax. waaw ah, waay dégg rek mais man mais man. oustaz Mohamed nee na lii mantulaay. lii mantulaay. waaw Maba ah. euh, mu tudd sax maam Sidi nee na nii li ah. mantulaay Bakary nee na lii mantulaay Njagare na lii mantulaay yow nga xuloog ñi ma lim ñëpp moom mu am ak ñoom ñëpp jàmm bëggu la bëggu la mais mat kilifa mat kilifa cër la mais mën njaboote moo jafe njaga mooy jafe yàlla xam nga nit mën naa amat kilifa rek mais mën njaboote am na góor ñoo xam ne nag man attention dañoo dérapé seen kër ba pare de. waaw jaga dafa góor ñoo xamante ni yow moom sa kër du dérapé macha allah. non man benn laa yor. non non benn yaa ngi dégg man tuut dafa am góor ñoo xam ne ñoo dérapé seen kër xamul nga lu tax nooy doxaanee ñaareel di jëw aawo <laughs> xam na naan naan naan bu naan ko bu ma la takkee nangam parce que sama aaw dafa xasaw vraiment sama aaw organisé wu vraiment sama aaw man bu ma déggee ñun jigéen ñi waaye ñun jigéen ma dégg ngeen ay xeetu cuuraay dama naan xanaa sama soxna xamut loolu léegi yow nga jàpp sa soxna mantu di ko dogot dogotee di ko dogot dogotee ba xëy takk ñaareel ñaareel bi am arme bu aaw bi amul. nga defal leen was nga defal ah? leen defal was. waaw naan lii xaw ma ko woon. fekk bu ñu añee ña ngay naan was bu ñu reeree ña naan was was bi sax ndékki rek da ko ciy. amaana sabas waaye boo leen ko defalee ñu crise. ko naan alaam. naa gën léegi nag ñaareel bi. si dañoo mën cuuman caa. xam nga ñaareel ba lu muy wax ñaareel bi naan takk ma ma fajal la sa mer waaw départu ah, ñaareel bi psychologiquement rek danaan ma danaan ah, danaan jëkkër ji takk ma boo ma takkee ma fajal la sa mère bu ñëwee ci kër gi fekk ndékki li commencé nag gis vrai visage ji coow la tàmbalee juddu ñu ne aawaa ah, def lii ma lay wax lii ma lay wax njàng ay nit nit nit dañ ma koy nettali am na aawo gis naa da ngay gis góor ñoo xamante ni seen aawo day fay ñu dugal ñaareel mais bu ñu dugalee ñaareel ñaareel bi da nekk geerukaay mais bu aaw bi dellu siwaatee ba ànd ak ñaareel bi euh, ñaareel bi ci saa si lay xam ni aaw bi jàmbaar la waa ji moo saay-saay mhm. comprendre nga après aaw beeg ñaar bi dootuñu réeroo mais après jëkkër ji ñaar gis nga jëkkër ak euh, ay wujj bu nu jub jubooyee cent pour cent fekk jëkkër ji nekk naa fekk jëkkër ji dootul am jàmm ci kër gi ndax nu toogee ñoom ñaar bu duggee day stressé mhm. kumpaam ñi lu ñuy wax wax la mhm. aaw yëpp jàpp nañu ñaareeli ay takkoo lañu kenn nobu leen Mm-hmm. jàpp nañu du ñu ay jabar ay takkoo lañu kenn nëbbu leen loolu la def seen bopp yi ñoom ñaareel yi ñoom bañ nañu ba duñu wax aawa ngaawa la ñuy wax ngaawa mm-hmm. nga gis ni langage yooyu ñuy dóorante mm-hmm. coow yooyu ñuy waxante mooy indi problème ci biir ci biir ci biir ci biir kër gi <laughs> am si dañuy émission ngir yàlla da lay yàq nag. da lay yàq ngir yàlla waaye. nee na nga seet si yàlla rek waaw bàyyi ma émission waaye seet si euh, ka nga fa bàyyi. waaw doo dem nee na nga seet doo dem doo dem Touba de. nee na ka ah, Fall la seet si ka ma bàyyi ci wax bi am ay nekk yoonu Touba ne yoonu néew ci nag. gis nga mantu gis nga loolu lépp ful la ñi bokk ñi bokk wërsëg la. Mm-hmm. xanaa xamoon ni jàmm day tax sa borom kër bu génnee bu génnee lu muti am ko. Mm-hmm. te góor ñi. wallahi mënuñoo daw ci ginnaaw dépense ak nañ koy amee mm. ak lañ fa daj ñëwaat di delluwaat di daw ci ginnaaw di jubale ay ay ñaan yu xeex dëgg la te xanaa xamoo ni effort yi ngay def pour xuloog sa sa sa wujju mm-hmm. effort yu ko gën a ndaw ngay def pour jubóog moom waaw waaye ñaan rek waaye yàlla am na ñaan ñoo xam ne ñoo ngi sëy ci kër gi mm-hmm. amuñu problème ak seen jëkkër mm-hmm. aawa beeg ñaareel boo leen waxoon loo leen jote xamuñu ko xamuñu ko waaye njëkk yaa ca dugg ah. barina problème yoo xam ne njëkk yee ko andi ci biir kër gi. Mhm. Mhm. te bu ñu jàppee ne dañoo sopp seen càmmiñ. Mhm. ñoom ñoo gën a noonoo seen càmmiñ. ndax bu ñu bëggoon seen càmmiñ jàmmal jàmm dañuy xool liy andi jàmm ci biir. ci biir kër gi ñu di ko def. dëgg la ah ñu essayé waat kii ba xam allo allo. allo allo. allo. allo Pape. waaw. Seck. na nga def. Seck ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziare. Seck ñu ngi lay ziar bu wér. jërëjëf. Ah, waaw damaa fay télé bi may dégg. waaw waaw ñu ngi lay dégg bu baax papa. waaw kon léegi moom moom moom laa doon wax. Mm-hmm. waaye nag ah, Serigne Père Diakhaté ku ko jëkk safara doo ko gis. Ah? Serigne Père Diakhaté. Mm. Mm. ku ko jëkk safara amul. dëgg la. Mm-hmm. dëgg la borom ñeenti jabar itam. Mm-hmm. ku lu njëkk safarit amul. Mm. waaw ah, Mamadou Mbaye yaak yaak Fall dama leen di li muy wax ñor na wa déggal nee na Mamadou Mbaye dama leen hmm? ban góor moo bëgg a bokk ak jabaram kenn amul ban góor kenn ban góor moo bëgg a bokk jabaram kenn kenn laata laa tax góor ñu amuñu benn politique ci jigéen ñi boole rek ah, amul ah, benn jigéen bu bëgg boo takkee ñeenti jabar ñuy maslaa yëpp neexul te léegi jamono léegi ji dangay ngay am sa aawo tam ñaari ñëw dajale fa wala mu jaxasal ak eh, wala mu jël seen baay di séddale leen ak seen baay. Mm-hmm. waa si ah, seetal lool rek. Mm-hmm. waaye yéen yal na leen yàlla defal sutura maa ngi bàyyi yal na yàlla defal sutura. amiin amiin waaye sëriñ bi daal doomi sëñ Fallu ji. amiin Seck yal na ko yàlla sàmmal. amiin yaa yal na ko yàlla sàmbal. amiin amiin Seck. yan eh, mi ngi feeñe liggéeyam moo ku nekk xam nga Serigne Touba. ndeysaan même même sax xam nañu Serigne Touba. walaay dëgg Serigne Touba ku ko xamul amul. jaamu yàlla amul poos. adimu rasul. du jël xaalis jaamu yàlla rek. walaay dëgg mhm. waaye sëtëm bii. Mm. yàlla ku yàlla eh, teg loxo aaral ko boppam. amiin amiin jaa ngeen jëf. amiin jaajëf Seck suñu papa. Youssoufa Seck ñu ngi koy jaajëfal bu a wér a wér sama bu fay waxee moom du a commentaire déedéet bu ci commentaire mais li mu wax xam nga mu ko jagleel ñan mhm. ñi dul yemale waaw waaw parce que dafa bari góor ñoo xam ne faal dañuy jéngu ñaar ba ñett ba ñeent mais mënuñu yemale euh, di souffrir loo ñenn ñi xam nga loolu tamit jigéen yàlla dafa am ko teg bu dee mën nga yemale moom takka ba moom je pas contre la polygamie du tout contre ma ko ndax yàlla moom moo ko wax waaye nag na nga matale li yàlla ba mu ko tegee dafa teg ay charte yu mu ci boole dañ koy matale rek gis nga njaga hmm. léeg-léeg am na yoo xam ne sëriñ du ko waral ñaan du ko waral ci nit ka la hmm. am na jigéen ñoo xam ne boo nee boo leen fixé seen kanam moo la yemale hmm. doo leen sosal dëgg la mais am na jabar yoo xam ne ñoo gën a tëxat xar dëgg la dañoo wayadi wayadi wayadi ba ku ñëw toog seen bopp xoola ñeenteel sax mën naa ñëw foowe aaw bi boo amee wujju euh, euh, mel ni tàmbalee nag euh, sol yoo daanul sol. sol yoo daanul sol. di takk perruque mosoo takk perruque mu jënd ci baadu nga teg fële. di dangal. man xam nga sol près du corps crop sax yenn saa ñu sol ko. parce que gujj bi xale la loolu la mel. xam nga di vidéo ko. statut yoo xam ni. man gis nga kenn ku ne man dafa am na tiiru boppam mu ngi mel ni tey jii boo demoon oustaz dama bëgg euh, émission bi nga commencé di lijjanti kaay stress loo nga ma. parce que mënuma ko awma habitude bi mm. njaga daf koy dund lu ko lu comme ça jig na ko mm-hmm. noonu la amee jigéen ñoo xamante ni cëfër cëfër daf leen a jig xanaa xamoo jigéen dina sëy ci këy kër ñu koy tooñ à chaque fois jëkkëram jàpp ni moom mooy tooñ fekk moom la ñuy tooñ mais problème moom mooy dafa am problème communication waaw lay mënta lay mënta am koo xamante ni dafa mën a lay mën a lay mën a lay xool mën naa lay ba dugal